bu dee yeewi askan wi ak euh, wàllu Sénégal bon il y' a beaucoup de coalitions mais mën ñaar nga si elles sont représentatives mais de chaque ne damay xeeb ñeneen ñi su ma tuddee kenn opposition ra une naa ñëpp mais yeewi déjà beaucoup xoolee les termes sont des termes qui sont sémantiquement chargés yeewi askan wi boo demee ci nit di ko di convaincre naan ko dama la bëgg a yeewi mun pourquoi nga may yewi nga dañ lay yew ndax li ak li ak li mu xam effectivement li nga wax c'est say convaincant doxul man nga gëm ni kon sa discours baax na boo jëlee nguur gi mën nga ko jàppale ci loolu wala c'est la même chose boo ñëwee nit dama dama lay wol parce que dafa nekk en situation de danger bu fekkee sa discours également c'est un discours portant mu gëm ko mën nga am ay ay voix yu engrangé dans ce cas c'est le Benno qui perd dans ce cas là bon léegi nga xool Yewwi askan wi yan coalition ñoo fa nekk fu mel ni Jaxaay par exemple il y a de grands partis comme le le PASTEF comme taxawu Sénégal am na parti crédit am na parti pur ku ci nekk boo demoon sa bopp mën ngaa gagné mbaa nga am lu baree bari mais bu ñu boolee encore une ci lay gën a am doole contre la benn nga xam si c'est seul contre tous boo demee wala Sénégal aussi c'est la kon yuuxu mën naa jub fu ñu ko feewagul adversaire kenn du ko xeeb ndax ñoom ñëpp dañ dañoo réfléchir mûrement seen position ànd mu nag ànd nawle àndu dëgg boo xam si bu ñu demee mën nañ am dara te dans ce cas c'est